mu mel ni sëriñ bi ci boppam moo ko njëkk defal boppam moo ko wootee ba noppi defal ko boppam wax ni bis boobu bu ñëwatee li ko tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem lu ci waaye am rek na nga ma ko santale yàlla suñu borom bis boobu nag keroog bi fi nasaraan yi jëlee sëriñ bi sëriñ bi bàyyi ay doomam bàyyi njabootam bàyyi dëkkam jóge si ñu jële ko fi mu dem mu jàll jeewal bi mu jógee jeewal noonu mu continuer dem ndar ak la fa xew yëpp ñu jële ko fa indi ko ndakaaru keroog bi ñu fi jëlee sëriñ bi ndakaaru dugal ko ci bato bi ànd ak moom yóbbu ko en exil mu dem réew mi ñuy wax Gabon fa la war a defee liggéey ba bis boobu sëriñ bi di dem nag la ni woon nañ ko santale yàlla muy bis bi nga xamante ne si dafa doon liggéey ngir laa mën a am ndam bis boobu la sëriñ bi wax ni nag bu dellusee na ngeen ma ci santale yàlla rek nag ci lépp loo xam ne sëriñ bi digle na ko rek mbokki taalib yi dañ ko def ba mu mat sëkk ndax sëriñ Tuubaa dafa wax ni li fi moom tey jariñe mooy akuk taalibi taalibi rek moo am solo taalibi rek mooy lu wóor yàlla ñu ko sëriñ bi defal ñu ñëw nag Touba bi ñu ñëwee Touba nag ñëw màggal si ci kër soxna su baax soxna soo xamante ni si ak taalibi rek moo ko ñor soxna soo xamante ni si li wolof naan ku donn ko baax ku ne loo baax doyul waaye fa mu donn ak taalibe rek la war a mën a nekk ak taalibe rek la war a mën a am waaye nag la mu donn te ak taalibe ne ci waaye nag da ko moom dafa jël njureelam jënde ko ak taalibe kooku mooy kan mooy soxna muumi kebe moom alxaaji njuga kebe Babacar soxna muumi kebe mu ajratu Marème Dieng saala bu ñëw soxna mumu Kébé mo alhaji abdullahi Tage mom Serigne saliw soxna mumu Kébé Serigne saliw jigen ji nga xamni leppam da ko tek ci ndigal soxna Moumi nag dajeeg waaju baax dajeeg asgoor asgor so xamanteni si Serigne saliw moy alhaji abdullahi Tage tey nak ci kërëm lañ ñëw bi ñu xëyee suba kom ni ngeen ko gisé nek nañ ci alquran bi ndax serigne bi jeul sëñ Abdoulaye dafa waxone ni magal Touba day weesuwul buñu ñu nañu jang ñetti kaamil bi ci njëkk moy def ko addé yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi ci top moy def ko addé serigne Touba benen bi ci top moy def ko addé julit sox lolul nak la soxna mumi Kebe mom serigne saliw tàmbalee liggéey benen bi ci top nak serigne bi wax ni lolou ñuy wax berne nee na nañu ko def ci màggal gi ak njàngum xasayit bernde bii bu ngeen bu ngeen xoolee xam ni lépp loo xamante ni si sëriñ bi digle na ko woon tàmbalee ko ci ganaar ba ci gëléem muy xar muy nag muy bay lépp soxna mu Kébé def na ko ci màggalub sëriñ Saliou sëriñ tubaa sëriñ Saliou Mbacke bii soxna Momy Kébé sax ren boole na ci leneen loo xamante ni si xëy na sëñ bi sax boolewu ko ci woon waaye bu ngeen xoolee lépp luy fruit de mer te nit di ko di ko jëfandikoo rek te mu seer lool soxna mu ni jël na ko ànd ko sëriñam bu baax bi ak taalibe yi ñoo def ko ci màggalub sëriñ tubaa gii kon kii dégg na màggalub sëriñ Touba bi mu fi ñu fi ñëwee ànd na ko nag ak ay bokkam ànd nag nag ñi nga xam ne tey jii ñooy waa kër sëriñ Abdoulaye Tage tàmbalee ko ci jigéenam muy soxna kenn Tage ànd kook ay xaritam ba ci doomam soxna Daba Sakho ñoom ñëpp jóge États-Unis ñëw ci bis bi nga xamante ni si mooy bisub Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ñu koy defee màggal gi fii ci kër soxna Momi Kébé waaye nag kenn desul tey jii boo fi ñëwee kilifa gu ne di nga ko fekk tey jii bu ngeen xoolee ci saal bi mi ngi fees dell Serigne Maodo Cissé Pire di kenn ci soxna Momi di maam ci moom doon wëllërey ajiratu Marème jang Sala don wëlërey alxaaji Njuga juga nga xamni yag na dal ci kër gi bu ngeen fi ñëwé bu ngeen xolé serigne Muntaxa Gueye mi ngi ni tok moom di jàngkatu serigne Muntaxa waye di wëlëree soxna momi soxna momi dal képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah ta ngay te yonent bi mo xam ngay tijaan mo xam ngay murid mo xam ngay khadir fu way mëna nek rek bu bis bi ñëwé sam xel bu nekké ci Touba yaangi bëgg dem kër soxna momi Kébé kooku nag moy soxna mumi Kébé mom Serigne saliw waaye nak soxna mumi yamul fof bu ngeen xolé xol gatti xol len leen yi xol len nag yi xol len xari dara manqué wu tay ji bo duggé ci wañi xol nga xamni lepp lo xamanteni ci ni rek nit ñi ngi koy def diko diko diko defar ay xéewal nit diko jariñu soxna moom wut na bam mat sëkk ay conteneur la ci indi waaye lima ci gëna yeen xolal bol yi nga xamanteni ci si lañuy def ci magal gi di ko def ay ñam soxna muumi lu ci nekk rek ay paquet la ci daaj muy ay bool yu peq yoo xamante ni si kuñ ci defal ñam rek da nga sawar da nga am mbégteem xéewlu ci da nga sawaram xéewlu ci waaye nag yemewu ko foofu damay wax ne bu fruit doon doy kon fruit daaw yi doy na lu ci nekk nag soxna muumi ay conteneur la ci wàccee fruit yi dara manqué wul boo xoolee ba pare mu teg ci jël service boo xam ni muy self service Amina self service jël leen maanaam ci wàllu ndékki gis nga leen ni ñu ànd ak Amina ci wàllu lekki dara manqué wul kenn ku ci nekk la nga soxla boo duggee ci saal bi da ko fekk nga jëlal ko sa bopp kooku mooy soxna Muumi Kebe soxna Muumi nag Serigne Touba dafa waxoon ni gannaaw bu ngeen ma santalee yàlla na ngeen ci jàng xasaay jàngkatu xasaay di ci Sénégal yëpp ñëpp ay wëllërey soxna Muumi lañu ay wëllërey alxaaji Abdoulaye Tage lañu. sëriñ Jiili bu TFM moom it bokk ci ñi nga xam ne ñooy doxal màggal gi di kenn nag di porte-parole kër gi moom it mi ngi ci biir ànd ko ak ñoom ànd ko ak alxaaji Njaga alxaaji Njaga mi nekk TFM ànd ko presse bi yëpp national ko international ñëpp kon soxna Momy lañ dal ànd ak moom ci bisub Serigne tubaab yi Serigne Touba nag dafa wax ne bis bi de ku ci feeñ dootoo ci nëbb waaye nag haji baba babacar njuge kebe mi ngala ma soxna moom dom ajiratu maram jeng sala ji borom yaay ju bax ji nga xamni yaayam dafa nekkon une femme sociale ko daan dimbali dom adama serigne ablaat dafa daan wax ni man day xawma njugo fu muy jele khalisam waye xamna fim koy def tali bi nga xamni ni yi mo joge ci jak ci jumaa ji jëm jannatul mahwa ba ba ngay ag ci ila Touba bi tali bobu alaaji njugo kebe mok fi def kon ngala ma domam ji nga xamni dafa jël léppam nag jënd njureelam jënd léppam nag doon taalibe Serigne Touba ñëw ànd ak nag borom këram Alaaji Ablaay Tege mu baax ni gor su baax si nga xam ni nee na ma man sama man Serigne Saliou moo ma teg ci yoon Serigne Saliou moo ma dimbali ñoom ñaar ñii nag nga xam ni ay payoor Serigne Saliou lañu Serigne Saliou boole leen ñu ànd ci liggéey liggéey bii dama ni daal kuy seet nag defarub Serigne Saliou boo ñëgee boo ñëwee ci Ablaay Tage xam ni Serigne Saliou defar na ko kuy seet defarub Serigne Saliou boo ñëwee ci soxna Momy kebe xam ni nag Serigne Saliou def na ko soxna Momy ay waxam bariwut soxna Momy jëfam rëy na soxna Momy lu mu def fàtte na ko bu màggal gi jeexee ca lay tàmbaliwaat déwén soxna Momy dégguloo ko Grand dégguloo ko Sorano amul lenn luñ koy tuddee amul lenn luñ koy woo loo ko dégg Serigne Touba Xaadimu Rasuul la loo ko dégg Serigne Saliou la loo ko dégg l'islam la soxna Momy bu màggal jotee li muy def ci màggal gi su gàmmu jotee noonu la koy defee ci këru diine yi ku xewle ci njaboot Serigne Touba gi noonu la koy defee kooku daal mooy soxna Momy kon ñu ànd ak yéen di ñaan nag ci barkeb Serigne Touba màggal gi nga xam ne ñëw nañ ko ren ànd ko soxna Momy Kébé yàlla lépp doon njiglaayam ci barke Cheikhul Khadim ndax borom këram nee na soxna Momy de gërëm naa ko sant naa ko waaye nag soxna Momy lu mu def rek liggéeyub Serigne Saliou Mbacké lu mu def rek ab ndigal moo ko may ndigal daal mooy li wóor soo ci nekkee nag ab caabi la. su ub su su ëppee du ubbi su manqué du ubbi soxna mu mi nag ci loolu la kon nag ni ñu ànd ak yéen ci màggal gi rek xam ni lépp lu ñu fi def rek sàkk ngërëmal sëñ Tuubaa moo ko waral ki leen ko doon présenté nag mooy seen mbokkum taalibe Assane Gawlo Mbuub moom Cheikh Mouhamadul Fadal Assane Gawlo Mbuub bu Allo Dakar maa ànd nag sama caméraman bu ñu caméraman bi muy Alxaaji Mbay Jaw ànd cee nag ak équipe bu Allo Dakar TV yëpp ci ndigalu nag ki nga xam ni mooy kilifa gi muy directeur général bi muy alhaaji Bounama Fati jërë ngeen jëf ba ca